ñëw nag léegi ci bi nga xam ne moom moo lëmbe coow li Mati Mbaye sama wujju tubaab mais man tout d'abord balaa maa dugg ci watu Mati lu ñeeño demee ba def boppam géwél ñeeño euh, ak géwél lu seen différence duñu benn non danga naan lii moo tax duñu benn waaw non booy xool géwél yi ñoo gën a géwélee gën a saf xorom gën a bëri caaj. ñeent na yor na sedd waaye ah. non. Eh, mun ma. ñeeñoo ak yoram nga leen wutalee. Ah. li ñuy liggéey. cest à ci mbaar ma lay ne. waaw. géwél mi ay sabaram. waaw mais boo xoolee géwél sax dañ koy wax ñeeñoo. géwél dañ koy wax ñeeñoo géwél ñeeño la loobe ñeeño mais mais mais cadre loolu moom mooy seen seen seen différence étymologique voilà étymologie voilà mais bu ñu ñëwee nag ci ngéwale gi ci ngéwale gi yow fi mu ne nii ngéwale gi waaw ah. boo fekkoon Mariam Pël Fuuta li da ngay génn sama <laughs> benn commune Pël Fuuta la fii lay toog day wax ba lekk bi wi lekk kii bi lekk boutique bu jug dem barki Serigne Touba Mbacke te nag yow mu naa la eh kon wéroo de te Pël Fuuta la ma ne ko demal jaay jaabare ah. baa nga jaay bàyyi ñu soo bëggee ree moom laay woo fii dafa neex te Pël lu mu war du ca dellu. waaw mais mais Mati Mbaye ci xale géwël nekk ci biir kër ak ñaari ñaari jabaru magam ah Mati Mbaye mayoo leen daara Mati nekk say jabaru frère. waaw euh, liggéey bi ko laaj. Eh. boo déggee damay wax damaa judd ci ay ñeeño màgg ci ay loba yoro ci ay géwël. Eh. gawlo yoo ma toqantal dégg bu doon benn kaas ma ne la maa ko ne secc naan. mooñaale. Ah. fi ma ay diggante géwal ak ay lawbe kër Assane Saw ak kër Aale Caam rek géer ñu wër ñu ñu ñoo nekkoon kër ñooñooy si alentour boobu noonu laa yaroo ñu ñëw sa nekki nag Ngoné Mbaye ma di ko sikk nga moo ne Ngoné Mbaye sa doomu bàjjan la de ñàkk fayda la def mais nga jàppale ko boo ko sotalee mu am fayda bay ci say wewu tànk balaa ñu lay jàppalee jàppale sa bopp Ngoné Mbaye amul fulla man kii Ngoné Mbaye mere naa la de Ngoné Mbaye da ngay teg say pexe. xam nga ay yëf yooyu laa koy def man an xaalisam la soxla. waaw bu dee jàppale Ngoné Mbaye laay jàppale. jéeri Ngoné Ndaat ngay jàppale Ngoné Mbaye jàppale woo Ngoné Mbaye ah. parce que gis naa ne loo jàppale jàppale Ngoné Mbaye bu ani génnee xaalis nga teg di Ngoné Mbaye saraxe ko. non c'est que ani nam lay joxe xaalis da koy joxe boole ko ay féem te ngoone fa nekk naan. <laughs> ba pare bëgg yaayam naa ko sa kanam gi mel ne mbaxalu balaa muy nit ku baax sama mag ji. Eh, Fatma ma sama xarit. Jaal Mbuub ak Jaal Caam Jaal bu sa eh, Jaal bu la sax Jaal Mbuub ak Jaal Caam. Jaal ma ca Ayre ma ca Ayre dogu bu sa seer. Eh. xam nga lu tax moo tax. li may wax lu ko tibbee sama xool dëggantaan yàlla daf ma boole ñoom dañ dem ba mel ne uh-huh. nga bu ñuy génn man moom Père Mbaye ñooy ànd bu nii. ndeysaan programme bu artiste yi xewle bu ñu dem ñu ñettee ànd. Père Mbaye di suñu góor baax góor nit nit koo xamante ne dafa sympa Ngor Mbaye nitu kese la man ma jeté kenn ay fleur mhm. ni ma gisee ni samay magay samay xarit. waaw mais mais da ngeen jël année intégré ko seen biir yéen ñi yéenu nen la yéenu sénégalais yéenu géwal yéenu ñeeño yéen a xamante yéen a bokk aar mais da ngeen intégré année ci seen biir ba année dem ba nduróog yéen. année dafa dem ba nduróog ñun maanaam suñu jikko suñuy doxalin suñuy façon de faire te travail d'équipe pour mu dem développement lu mucc ab lay doon foog xel xol yi set bu bañ am benn tricherie gis nga liñ leen woon ci tele bi ngeen gis mais bis boo la ñu fekkoon tournage ñun ci ginnaaw caméra yi danga naan noonu danga naan ñi famille lañ dañoo bokk. ci wàllu théâtre ci biir. sama wujj tubaab la sëyu wujj Sénégal nekk loo xamante ne des fois njëkk yee ci war a jàpp pour mu baax mais yenn saa njëkk yee ci ja njëkk yee koy tas. waaw boo xoolee loolu la Mati Mbaye di jàngale. waaw mais li Mati di jàngalee ça ne veut pas dire que euh, sëy wujj yëpp noonu la mel déedéet am na sëy wujj yoo xam te ne ñay wujjee am nañ fulla toll njëkk dugg seen diggante mm-hmm. am na sëy yoo xamante ne. njëkke ya am nañ fulla kenn du jógee ci àll ba dugg seen digganteeg seen i jabar mais am na sa yoo xamante ne njëkke ya koy tas dañuy waxante li fi nekk da ngay gis njëkke bu sey ba ñëw sëyam tas mu ñëw tas kër kër kër càmmiñam nga gis njëkke boo xamante ne da mel ni mati mbaay puusul paasul duurul fayul attelul xeex amul jëkkër amul waxaale amul jàmm heure bu wooyee copain mu ñàkk ko teggin heure bu wooyee mu ñàkk ko kees na dañuy wax dëgg waaw non exemple laa lay wax waaw xam nga am déjà amoo copain mais après yow naqar goo ngay toogee nga bëgg ko sip sa jabar ci amin mais lu tax non loolu sax impro dañ dañ ko improviser fi ñu taxaw bokku suñ secret <laughs> da ko xoolee mu jox la fam pompom <laughs> ah ak lam ne nii foo xam ne nii mu ne nii ak vie xoma daama yow man xooma waaw <laughs> léegi Ngoné Mbaye lu scolaire card la ma doon jox mel ni démb ma sonn ndax dama taay. voilà mais sa diggante ak Annie aussi ci biir théâtre bi Ngoné sëyu Sénégal dafa metti ndax teraanga. Mm. dafa mel ni léeg am na si yoo xamante ne bu dul teraanga bi sëy bi du neex. Mm. te joué ngeen aussi loolu ndax Annie du suñu xeet yéen kay moom mooy seen mbokku deret akkan wante lu ngeen jàppale jàppale ngoone bu teraanga Alioune ñëwee rek ngeen hmm. bàyyi ngoone. Euh, foofu boo xoolee Alioune Ndiaye li mu bind foofu li muy jàngal dafa am solo. waaw maanaam sëy du matériel sëy du teraanga dong te gis nga sëyu léegi goro yi ñoo ci war a jàpp ak njëkk yi hmm. mais da ngay gis kuy sëy bu ñëwee une semaine mu resté weeru koor dootoo am jàmm. da ngay gis kuy sëy bu nekkee en netta de grossesse un mois lay am ma ngay commencé dajale pour terle ay gorom ak pour terle ay njëkkeem boo ko defee ñu xas la mais dañuy waxante dëgg luy ndayam sëykat yi xale jigéen yi bëgg nañ sey mais jabaru càmm ñi ci biir kër yi sama genre gi ñu ci leen jëkkër uti leen jëkkër ngeen bàyyi seen jabar càmmi ñu ñu sëyi. j'espère que bokkoo si. Ah? ah. mu ko ci yàlla. ah man pare naa. yaa ngi ci yoon bi. maa ngi ci yoon bi nañ ma ñaanal rek. waaw. yàlla boole ma. Perpignan nga jëm wala fii ngay des. Perpignan wu lan <laughs> ay lu may <laughs> fekk sa doomu nday Ani. Ani ba mu toog foofu sa mag ngi dem ba Perpignan jëli fa Ani ñëw fàtte kii woo. nan nan de ngénte ji Perpignan nan. xam nga ngénteel Perpignan ma ne ko yow Perpignan noddu dafa jib foo fay xam nga tamit dafa dafay baate. mais mu ñëw ci sa ci sa mu ñëw ban sa séquence moo la gën a neex ci ci ci ci sa boobu ji boo xam ne ba tey boo ci taxawee seetaat sa bopp da ngay ree sa bopp. bari na. Euh. Euh, séquence bu may waxee Ngoné Mbaye sa doq bi mel ne Rus Kalarita. waaw loolu improvisation la moo tax ay réel la ma def. dëggantaan. séquence su Thierno Khoule Saw. waaw. neex na ma xam nga tax mu ne ma su ma koy seetaan. Eh. li may ree man nit ñi mënuñu ko xam. Eh. parce que jour boobu dañoo doon am foofu ci ginnaaw fi ñu tourné. Eh. léegi essance dañ koy taalee. xam nga boo ëppalee. waaw. léegi Cheikh Mbacke bu ñu juyee Cheikh Thierno Khoule Saw bi. yor na guutu essence day tànk ci kubéer gi sotti tuuti mu jëf. ma ne ko léegi li ngay sotti muy toq toq toq yi kii day yàqu. léegi sotti tiimaleel fii nga sotti toq toq yi jàpp. est-ce que dégg nga ma. waaw léegi de muy le temps que muy sotti kubéer gi affaire yi toq affaire explosé barki Rasulullah bum xam nga lu ci may chance kër gi piscine bi fa nekk. ci piscine bi ngeen dugg. man dugg ma ci piscine bi de si embarqué benn nopp bi daa lakk taatu mbir bi yëpp ñuul su ba may daan rab man tamit màccee na xule saw ah. dama pare sama yëpp dafa xoos. ndax daanu rab bi ma doon tëb man ko mais maa dugg ba taxaw sach bi. si nga xamoon ndox ndox xoosu xoosu. Uh-huh. affaire dafay effet. <laughs> si ma ne sama zone yàqu na ma tëdd si guddi gi mënumaa banku mënumaa tàlla ma takk si diggante bi rek affaire daal mi ngi noonu daal. waaw mais am na benn moo xam ne il faut ñu wax si fi ngay taxaw naa Mati Mbaye enfant bien préparé. sponsorisé par sa famille. non waaye bëgg nga wax parce que loolu après dina ñëw Sénégal ñëpp ko jël def ko challenge. waaw dañ ko def challenge. mais eh. mu bett ma trop. waaw mu bett ma trop. Uh-huh. ba ci bañ ma Ndeye Ndiaye yónnee bosam sama xarit boobu. waaw Ndeye Ndiaye Béthier sama numéro affaire bi affaire bi affaire bi affaire bi impressionné ma. Ah. ma toog ñu yónnee ma bu Jalika. waaw euh, bu maîtresse d'un homme marié. affaire bi impressionné ma. parce que man yëgu ma woon salange bi. Ah. par la suite la gis gars yi def vidéo di ma ko envoyé te boo xoolee boobu damay gañ sama bopp. Ah. di gëm-gëm leen sama bopp di baax. sama bopp di baax loolu aussi improvisé la. ka loolu. non loolu lu ma yàgg sama slogan ma yàgg utiliser la loolu ma yàgg wax la tra euh, enfant bien préparé sponsorisé par sa famille dama ko daan def sax sama statut su ma bindee damay wax loolu. travail de maman. waaw travail de bi après la ñëw enfant enfant bien préparé bi tax ma ko doon wax mooy sama famille dañu soutenir uh-huh. moo tax may wax ñooy sama sponsor leader man sama famille ñooy sama sponsor leader. damay faral di wax naa lu ma géeti terale fekk nga sama waa kër terale ma ko pare bu dee chiffre takkal nañ ma ko bu dee mbub mu baax solo nañ ma ko bu dee or takkal nañ ma ko te samay mag ma koy defal moo tax ma doon wax loolu enfant bien préparé sponsorisé par sa famille xale travail de maman repas de fiston bénédiction di jël càmm bi ñu wax Rose Pro borom automobile moo koy wax ndeysaan Rose doomu ndey si tam ba jour boobu may wax a Père Mbaye ne ko man jéeri ngóone ndaat enfant bien préparé sponsorisé par sa famille xale travail de maman repas de fiston bénédiction de Dieu maa ngi nii waaye léegi dama ko dindi doo ma li ma wax. doo wax xale beauté naturelle taaru cosaan. Ah, waaw sans tricherie maa ngi fi réew mi macha allah <laughs> man dama la faa lu ma lu ma métti laay wax nii. xam naa ne du ma doyee tey mais dama la faa grand problème. non yow dañoo faawante ba ma njëkk a seetaan sa émission entourne nga def sa koppatu gu rëy xaw ma ma naan moo la ba pare di wax waxi mag yoo xamante ne yow doo doo xale doo mag. jëmi sa diggante ak Eumeu Sène mu nekk ku sori ci yow. ñoo ngi sa diggante ku ma ñor. waaw. ñoo sama diggante ku ma saf. Uh-huh. ñoo ngi sama diggante koo xamante ne ma koo bëgg bu su ma sigu xool ko sama yaram lay daw. Uh-huh. comme Demba Yacine Kumba Bey. Uh-huh. Demba Ngom ak Demba Ngor Demba Fadi maa jigéen. xam nga xoyaan Fatma Bey. koo koy borom bàyyi seexee. sonu nga may bàyyam asor nga may bàyyam. Binta Badiane rek la ni yaayam. Seydou Khoudia Gueye. mbokkum ndeyam Papa Ngom mbokkum ndeyam Souleymane mbokkum ndeyam Xaadim Caat waaye mbokkum ndeyam Asu Ngom taaw si ruq jege ba mu bari doole sama xarit sama jumel sama mag ki lekkul dara bàyyi ma ki mën a bul dara xujj séeré ma seen kooku ñu bëri dañ yaakaar damaa fan ama seen ndax bëri kooku daf maa yar jamono ji muy sol dëngal yu rëy du dund dund kaana dëgg mhm. ma dëkk ginnaaw raay nekk xale ñu bokk benn koñ bu rombee dañuy daxaw ñu ñëpp gaare def nii suñu loxo da ko dañuy jox xaalis par mu nekk nit ku reconnaissant ama seen ànd la man àndu hypocrite non non ma mën a wax dëgg daf ma yéene daf may daf may ñaax ci lu bari gis nga te bari na ànd yu tas xam nga lu koy tas ragal féete. waaw gis nga nit boo féetee ak moom foo sa ni man kii féeteel. Mm-hmm. mais keneen ku war a nekk sa nit mbaa sa xarit du ko yàq amit mbaa yëg nga ni mbiru senegal ñëpp dama leen di daaneel man. waxuma la mbiru senegal mais Sénégal yëpp nag Mati da nga leen di daaneel. barke Serigne Touba Mbacke dama leen di daaneel ba xam ko ñu bëgg ma. équipe nationale bi football da ngay gis mbër bu naan man Guédiawaye lay faral ak. Guédiawaye FC Balla Gaye naan Guédiawaye FC Eumeu Sène naan la AS Pikine. Ah, waaw Modou naan la Parcelles. waa eh, ñëpp dañuy ñaan dañuy ñaan da ngay gis Balla Gaye zibile jaar ni ah, Modou Lo zibile jaar ne. ba Sénégal gagné waa ji dafa daw ba mu yàgg ne bu doon bëri la. nga nga dem kër Balla Gaye wala kër Modou Lo waaye Sénégal la gars yi kenn xamul foo jëm dañuy daw rek. moo te pourtant gars yi dañuy yaakaar ne sa place de l'Obélisque la <laughs> te boo ko wërsee bayal bii da ko fi fekk si. <laughs> dafa am ñaar ñoo xamante ne samay nit lañ ku may jàpp jàpp ma ak ñoom ku may baba ma ak ñoom Eumeu Sène Mamadou ba âge bagaay samay nit lañ sama grand sama grand sama copain mais man tey fi ma la fekk dafa ma jaaxal ndekete kon yemoo ci théâtre rek def émission quoi ma da yow Jami Gueye yow da nga bëri ay feema ah. damay jaay Jami Gueye nekk nga fi <laughs> danseuse kat Jamy gis naa sax Bantamba def ay émissions. damay liggéey BMTV fa laa nekk. Jamy Gueye ci boutique bi. sama boutique nga fekk nag. ah sa boutique. ngay jaay. ngay jaay. émission bu métti lañ ma jug di jaay client yi <laughs> damay jaay samay client yow eh, New York laa déggee indi biir Pikine wax amul dara xew li si tëggul waa li woyul Baaba Maal woyul dikkam Mbay Njaay woyul kam ndik fi réew mi toll. salsalaato bal ba dem na kaw ku ne tiin xool kaw ñu xool fu bal ba jaar. Eh. dara daa xew. xanaa gisoo tamit tamit tamit gisoo sama sama samay kii. da ngay publicité. samay tisetu coton yu baax col vert ah samay xeet samay xeetu sous-vêtement samay saabu métasol yu baax eh, États-Unis laa lay tegal nii du ay fodé xool samay streptococcus xool samay diw Avano jargën sa pour teint noir yi Palmers tubaari kàlla civic crème yaa ngi ne civic le mont xoola gaamu kantu kenn du am jàmm kuy liggéey kii wër di wax weer bu dee mën ñoo dem résultat de man damay liggéey damay liggéey bëgg naa jox yaay bëgg naa jox baay bëgg naa 18 safar gii di ñëw ma am lu ma dem yóbbu nag Touba ci sunu waaja émission bi ñu fëkk jëm ci jéeg euh, ñu di ko tëjee nag ak benn coup de am na koo xamante ne tey xëy na fekkee lu tuuti ci sa carrière waaye boo sañoon lii fekk ko fi euh, dëddu àdduna metti na la torop muy sa pàpp aminta tey du ma jooy de billaay du ma jooy rek maa bëgg a ma jooy. jërëjëf Serigne Touba nga jooy nag. jërëjëf Serigne may wax ci góor gu baax. Kuris sama papa jooju. ki liggéeyal Cheikh Ousmane Mbacké Noreyni. ba wàcc Cheikh Ousmane jàpp loxoom jox ko Cheikh Abou Madiana Mbacke mu liggéeyal ba Cheikh Abou Madiana Mbacke wàcc mu des ci loxo Cheikh Abdou Aziz Abou Madiana Mbacke moom wàccee keroog njabootu Serigne Abou lañ ko taxawu bëgg Serigne Abou tax ma taaw Cheikh Abou Madiana Mbacke damay wax ci góor gu baax ki def ci man taalibe ki def ci man bëgg Serigne Touba. sama baay bi bisori mi ci mbaaw lati gée dee bigé alias gée dee bigé maa nanga marim jaaga jaaga ndeelu biyee marim ale mi ci kàddu gis ca ki bëgg sëriñ Bamba ba mu jeex tàkk mhm. sama baay boo def ci man taalibe sama baay boo bëgg njabootam ba xëy dëddu sama baay boobu yàgg bëgg sëriñ Touba liggéeyal sëriñ Touba ba mu wàccee sëriñ Bamba woon boppam bañ ne suba la kas rajab la wàcc ñu denc ko guddi kas rajab te macha allah macha allah macha allah ku ne xam na ni kas rajab mooy màggal sëriñ fàllu ndax sëriñ fàllu nag dane woon yonent bi dani lay mën a cëpp muy guddi gi yonent bi rañaane guddi gi sëriñ fàllu gane jamono ñu de guddi googu lañ ko denc mi ak sant ñun taalibe sëñ Touba la dañuy sant muy neex ñuy sant muy naqar ñuy sant. sa copain bi doo ko gën. man amu copain Baye Fall laa am laa am te yàlla nañu yàlla boole. amiin moo gën sëy ngay wax bu fi kenn rang am dafa neex li dafa. non arrosé la toile dafa grave quoi <laughs> Mati Dada eh, Dada Jami Gueye moom lañ leen indiloon ci seen numéro artiste sur la toile gis ngeen ko en ah, franchement mu nekk koo xamante ne mën nañ ne exemple la elle a fait un parcours boo xam ne ci danse ñëpp ko nawloo théâtre mu ñëw nekk kiy dindi stressu sénégalais yëpp ak sénégalais yi ñu fekk ko ci bërëbu liggéeyukaay mu wan ñu beneen facette mu nekk nag ak yaay Fall goo xam ne ni ma leen ko waxee woon ku am pastef la des fois dañ koy suivre BMTV. mu nekk di couvrir ay cant bu fa nekkee nga xam ni du ko liggéey si mais talibe bu ñëw ci lu mu miin la kon nag ñu koy sant di ko gërëm di ko jaajëfal di leen jaajëfal yéen internet ak <laughs> deux cent vingt et un ma tim sama géer ñi non di nga ma may ma woo samay géer de <laughs> waa États-Unis maa ngi leen di woo jàpp leen sama combat ana da baax taalibe ma Abdou Aziz da baax bi Bakare dara man yaa delloo ma Abdou Aziz <laughs> di woo sama rakk Ndoumbé Guèye jàppaleen ci combat bi ndey fàllu borom États-Unis ah. nii la def na ko jàpp sama loxo kenn musul gis lu mel nii ah non damay gërëm non doy gërëm nga li nga gërëm ba pare gërëm as Bekaay Mbaye sama papa ji jëri eh, eh, jëri ngoone ndaat maa lay woo nga jàpp sama combat ëmma seen ngam dem ba yaa si kumba béy jàppal ci combat merci ñu ngeen di jaajëfal yi parce que mën nañ toog fii muy gërëmaate fii ba suba du jeex man maay jël samay décision bopp coupé ko ñu leen di dégg daje ci beneen numéro artiste sur la toile ak beneen artiste jaajëf